ministre ministère de l' intérieur arrêté boo xam ne bii comme ni ko sëñ Saliou waxee sànq déjà euh, dafa rétroactif parce que décision arrêté bi après euh, dépôt yi la beneen bi mooy euh, arrêté boo xam ne bii publier wuñu ko avant ñu koy appliquer parce que tey loi bu mu mënti doon tey loi ak même loi bi nga xam ne sax day dem day dem vote dem euh, promulgation après mm-hmm. publication bu demee publication ci lay doog a nekk effective donc opposable à tous mm-hmm. donc boobaa nag la ñuy doog a mën a wax ne euh, elle est générale elle est applicable elle est obligatoire parce que dañ ko publier mais loi boo xam ne bi journal officiel bu mu génn fekk na booba ngi appliquer arrêté bi parce que dépôt yi jiitu na jiitu na jiitu na jiitu na arrêté bi donc beneen bi ci des mooy euh, par exemple tey arrêté boo xam ne bii la loi munu nekk rétroactive waxuma laa sax arrêté boo xam ne bi tey kañ lañ ko kañ la génn te arrêté boobu ñoom moom la ñuy évoquer chaque instant parce que arrêté ministère de l' intérieur nee na euh, le surplus est nul n'avenu donc mais su ñu waxee tey minimum mini euh, je ne sais pas euh, minimum maximum mais mënoon nañu wax rek minimum mënoon nañu wax rek minimum tey ne li mooy minimum bi ku indi lu ko ëpp yaa xam bu la neexee sax nga indi électeurs yëpp mais le fait que ñu wax un maximum rek mais am na limite boo ko dépassé ci es hors loi donc la loi elle s'applique elle est obligatoire loolu moo fi nekk beneen bi ci des chaque instant da ngay dégg ñu naan la la loi générale nañ ko appliquer ñëpp mais impersonnel mais si nga caractère général bi caractère permanente bi ba léegi waxuñu ko la loi elle est permanente mm-hmm. tant que la loi est là elle s'applique mais dañ koy appliquer tey bu subaa ñu bàyyi ko appliquer ko kii bàyyi ko kële donc loolu dafa des donc loolu mooy problème bi donc recours bi def nañ ko pratiquement deux fois parce que parrainage bi loolu irrécevabilité la euh, parité bi irrécevabilité la donc loolu tey bu amee ñu bàyyi mu jàll beneen bi gën a garaaw mooy notifié wuñ ko sax notifié wuñ ko sax parti bi nga xam ne mooy coalition wala la coalition Benno Bokk Yaakaar alors que dañ leen ko war a notifier parce que am na irrégularité donc bu leen ko notifier sax si lañ ko mais bu ñu leen ko notifié wul moo tax bi ngay dem conseil constitutionnel tamit da nga fay dem mais yaakaar bu tuuti ngay yóbbaale moo tax décision bi bettuñu bettuñu gis nga li ñuy li ñuy wax on l'avait fait pour la forme mais non non euh, def li ñu war a def mhm. xam nga tey état de droit la ñu nekk yow defal li nga war a def parce que réew mi aussi bu fekkee dafa loo ci bëgg am looy yow da nga ko war a teg fi fi nga fi nga xam ne fi moo fi nekk gis nga loi droit bi ñu teg nii tey moom moo tax ordre am moo tax vie sociale am moo tax tey ba pare texte yëpp dafa war a nekk des textes prescrits loo xam ne tey fi lañ ko fekk vote ko soit les représentants di peuple le députés wala ñu dem référendum ñu ne lii kat mooy charte bi nañ ko respecté élection ñëw mais tey ni ñu nekk nii di ko taayee sur mesure on s'attend à tout lu ne mën na am Sénégal. lu nekk mën na am lu nekk mën am. Mm-hmm. parce que loi bi tey nu leen neex la koy defee surtout euh, l'arbitre est parti. Mm-hmm. mooy juge du parti mooy le ministère de l'intérieur tey loolu moo nekk suñu problème actuellement au Sénégal. alors c'est c'est clair euh, Nguirane euh, Serigne Saliou euh, c'est la plus haute juridiction du système bi nga xamante ne moom la ñu am fii ci Sénégal muy le conseil constitutionnel mais yaa ngi wax sànq une situation inédite boo xamante ne ñu ngi ko mës a dund fii ci Sénégal est-ce que dañuy wax ne quand même kër googu wala cour bu mag boobu mënut a régler problème de liste bi nga xam ne Sénégal am na ko tey. bien Fatou très question dinaa ci ñëw de mu bëggoon rek préciser madame la députée Maram Soda Tout à l'heure, euh, elle a évoqué le cas, je crois, d'une liste de pêcheurs, je crois, chèque, nous rejetons, n'est-ce pas En réalité, si on se fie à l'article 178, je crois, alinéa 6 ou 7, vous nous déposez chèque, ils ont tort parce que on demande le récépissé de, de la caisse de dépôt et de consignation. Donc, nous avons récépissé CDC, indi chèque. c'est normal que ñoom seen liste ñu invalide ko parce que ça fait partie des pièces yi nga xamante ne su manqué la liste devient irrecevable donc sur ça je crois que foofu kumba mu am ndey mu amul ndey amu fa ñoom seen wàll bopp dañ ils ont tort maintenant soo jëlee toujours cet article 178 je crois c'est là où on parle de liste incomplète alinéa 1 et je reviens sur la liste de Yewwi liste Yewwi bi bu ñu waxee ne la liste est incomplète je l'ai posé ici à un juriste de l'APR man leen c'est-à-dire incomplétude liste boobu dama bëgg ngeen wax ma ci lan la ak kañ la parce que y a une temporalité bien définie c'est-à-dire sur pour apprécier tout simplement une liste complète ou bien une liste incomplète cest dire mënoo nga ñëw nga recevoir et d'ailleurs lu ci gën a lan moo tax on a invalider la liste de Guirassy à fële euh, à Kédougou Gracie a présenté une liste de suppléants yoo xam ne motul et sans remporte xool ñaar yëpp la yóbbu gëm sa bopp mii ñoom aussi même chose seen liste bi ñu présenté pour ville de Dakar les quarante cinq quarante cinq on leur a dit que ñoom liste bi ñu présenté liste bi ñu présenté li seen seen liste kii kii matul finalement ça toute la liste de gëm sa bopp ci boppam daf daf daf ko yóbbu la liste de Yewwi à Pikine ça a été aussi la proportion ça a été aussi la même chose ci locales yi ñoom aussi bi ñu présenté une liste mu matul ça a emporté ça di ñaari liste yëpp la yóbbu waaw comment se fait-il que maintenant cour d'appel sur trois registres joxe ndogal bu mel noonu ñoom ñu ñëw fii ñu bëgg a couper la poire en deux moo tax man dama ne conseil constitutionnel aussi bu ñu wax ay sage xam sage mooy lan moo ñoom bu ñu dañu ñëw fekk situation boo xamante souvent boo déggee sax ñu naan conseil conseil créateur de droit lañ c'est-à-dire dañ ñëw benn fekk benn situation bu complexe c'est-à-dire torpiller loi bi mais dinañ def de sorte que que le pays puisse être stable. parce que sagesse boobu ñuy wax. Mm-hmm. ci loolu la ci ci la xam nga ñoom ñoo am possibilité boobu xamul tax je donne le cas par exemple élection yi passé bi ñu amee 47 listes yi pourtant code électoral bi li mu wax leer na booy voté da ngay ñëw nga jël bulletin yëpp c'est-à-dire nga dem ci urne bi nga tànn bi la neex nga sànni le reste ñoom bi ñooy gis loolu ne liste yi bëri na. ñu daal di génne seen benn seen benn décision wax ne électeur bi mën na choisir cinq listes pourtant loolu code électoral mais cest à c'était pour sauver une situation te loolu xel mën na ko nangu foofu la ñuy cest loolu tax ñu naan la sagesse du conseil constitutionnel sage bi du moo bu ñu leen taf mi rek sagesse bi ci loolu la loolu moo tax et puis bu ñu ne bu ñu la waxee yow yaay juridiction suprême nga xam ne sa décision yi c'est exécutoire et ça s'applique à tout toutes les juridictions toutes les administrations loolu boo fekkee ne cër boobu da ko am am na décision yoo xam ba la koy génne da nga koy xaar ba xamul tax ça va servir de jurisprudence dans l'histoire parce que li ñuy def nii bu subaa bu élection amee c'est-à-dire parti bu ko neex mu ñëw mu ne man liste proportionnelle dong lay posé wala mu ne liste suppléant dong lay posé su boobaa ñoom lan la ñuy wax la liste est incomplète ñëwuñu ko wax ils n'oseront pas te li may c'est-à-dire euh, euh, madame la députée li ma la woon wax tuuti ci euh, liste yeewu boobu. problème mu doublon la c'est-à-dire problème doublon boo xoolee article cent soixante-dix-neuf dafa régler problème bi cent soixante ñoom lu ñu wax rejet de la candidature la ñu wax c'est le rejet de la candidature pas rejet de la liste mais le rejet de la candidature notifié au conseil constitutionnel c'est-à-dire c'est le ministre de l'intérieur qui doit saisir le conseil constitutionnel pour le rejet de la candidature mais pas pour le rejet de la liste parce que c'est un candidat inéligible su fekkee ne c'est li d'un candidat c'est-à-dire n'induit pas l'irrecevabilité d'une liste mënul nekk c'est pas possible donc cest à que foofu lu ñu mën a mën a wax foofu yeewi n'a pas du tout tort te xam nga soo gisee code électoral bi li mu permettre moo di que parti yi mën ngeen a def ay ay erreur parti yi mën ngeen def ay erreur moo tax ñu ne soo defee erreur matériel ñu ne la may nañ la pour nga ñëw am na ñoo xam mën nañ dem duñ def benn erreur mais aussi nañ nangul ne parti bu nekk war nga mën def erreur l' essentiel c' est que boo defee erreur nañ tënku ci code électoral bi may la nga rectifier say erreur bu fekkee nag faute la boo xamante ni dafa jëm ci parrainage jëm ci parité loolu faute la boo xamante ni dañuy rejeter sa liste or bennoo loolu moo leen dal cest à ñoom li nga xam moo gën a garaaw moo dal bennoo te le ministre de l' intérieur ak waa DG Sénat ils ont été complices de toute la forfaiture bi nga xam ne moo am à propos de la non dénonciation dans la liste de de de de la liste de Benno comment se fait-il que ces gens-là qui sont chargés de la vérification de l'ensemble des listes parce que loolu mooy seen métier moo tax ma ne tey les gens devaient même attaquer la DGE parce que ce qu'ils ont fait ñoo ko tey ils ne peuvent pas mënuñu taxaw ñu ne ils n'ont pas vu les erreurs yi nga xam ne moo am dans les listes de Benno c'est possible lañ wax ne kay il y une complicité tout simplement d'un silence bavard loolu moo fa am ils n'ont pas ba même ba ko Déthié Fall waxee sax war nañ leen ko mën notifier maintenant quelle ban arme la ñuy jël gis naa ci certains d'entre eux ñaan woy c'est-à-dire seulement la notification mooy acte xamal légal bi bu ñu leen ko notifié wul c'est-à-dire que ah donc léegi ministre de l'intérieur bu ko neexee léegi mu ne pat ko ñu ne léegi notifié wuñ ko donc sa passe et c'est comme ça la war a demee non quand même il ne faut pas qu'on se bu ñu sonal Sénégalais yi cest dire bu ñu sonal le problème qui se pose mooy au que la des DGE n'a pas fait son travail Sénat moom je n'en parle même pas c'est des gens qui sont payés à ne absolument rien faire dans ces opérations les gens n'entendent même pas la Sénat c'est-à-dire ba ñu doon wax onel temps Diouf di wax Sénat sax temps Wade c'est pas cette Sénat là c'est-à-dire Sénat bi moom franchement parler je crois que tey liñ njëkk a war a xeex mooy il faut complètement dissoudre la Sénat parce que amuñu fi njariñ C'est des gens qui sont payés à ne rien faire. Aujourd'hui, ils sont complices de tout ce qui se passe au sein tout simplement de la DGE. DGE nag la fa xew yëpp ñoom ñoo ko def. ils n'ont pas ils ils ils n'ont pas notifié c'est-à-dire notifié wuñu l'histoire du parrainage de de de Benno. surplus su. mais mais yaa ngi wax ci Sénat mais est-ce que du Sénat également ay pouvoir am ñoo limité parce que quand na euh, xamante ne moom mooy. Euh, ñi déposé au-delà heure bi nga xam ne moom lañ leen joxoon pour ñu déposé. de ce pays quand on parlait de structure indépendante pour gérer les élections ONEL bañ ko sampee gis nañ ONEL lan la liggéey ba alternance am Diouf ma ko créé ONEL boobu ci ñi participer. à la transparence des élections bi ko daaneel ca la bokk Ablaye Wade Sénat bi nga xamante ne moo fi nekkoon amoon benn activité bokkut ak Sénat bii nga xamante ne ces gens la même président bi ci boobu sax day day est-ce qu'elle a le pouvoir je veux dire ndax amati na pouvoir boobu mais pouvoir bi euh, mais pouvoir baa ngi ci pouvoir baa ngi ci code électoral bi pouvoir baa ngi ci code électoral bi c'est-à-dire pouvoir baa ngi ci code électoral bi on a l'impression que durant toutes les opérations que ñoom amuñu lenn lu ñu def c'est-à-dire c'est des gens qui sont là rek bu toog bu ñu waree signé ñu signé un point c'est tout la seule fois qu'on les mooy bi ñu wax ne les partis ont déposé hors délai légal et loolu sax c'est pas vrai du dëgg du dëgg déjà la députée la moom démentir na ko na ñoom seen parti ils ont déposé waaw mm-hmm. donc pour dire tout simplement que tey problème bu ñu am bu ñu am DGE moo ñu ko teg le ministre de l'intérieur seen chef moo la ko teg mais surtout le conseil constitutionnel qui cette fois-ci xam nga les gens bi passé may mun a sax évoqué nañ ko léegi ñu ne wooy wooy parce que bi mu génnee décision fa non man keroog lu mu wax dama ne moi j'ai toujours attaqué le conseil constitutionnel pour son incompétence notoire mais j'ai dit c'était l'une des rarissimes fois j'ai dit rarissime fois où le conseil a osé au moins dire la vérité sur une affaire sur la liste de Dakar foofu foofu laa ci yem. sur de Dakar oui. est-ce que du honorable di wax bonbon bu ñu leen saxale rek. pour préparer quand même li nga xamante ne mooy décision bi ñu ñoom ñu tàccu di applaudir ah. di wax le droit a été dit. je suis je suis un peu étonné que vraiment que la députée di waxe noonu parce que du hoché boo xam ne dañ koy jox nit ñi c'est pas un hoché. boo xam dañ la koy jox comme xale après pour mën la naax parce que bu fekkee ne loolu moo ci am en ce moment ñoom la wax mu ñu woon wax leneen parce que loolu code électoral bi moo ko wax c'est-à-dire l' article 177 moo ne ni retrait ni substitution loolu amatu ca c'est-à-dire que ñii am nañ droit ñoom loolu lañ leen wax ne leen dem leen ngeen procéder a des rectifications mais loolu loolu dañu ko ci li code électoral bi wax ça ne veut pas dire que dañu ko sex dañu ko sexal cest dire loolu moo mooy lu normal maintenant si ñoom bu fekkee ne dañoo jàpp ne loolu tàngal bu ñu leen sexaloon pour mën naa dugal na ci ndëgg il ne mérite plus le nom de sage parce que un sage du def ñuy njaaj un sage da ngay xool fu difficulté am nga jëm ko yëkkati mais un sage aussi dafay àtt dëgg et cette fois-ci il faut oser le dire le conseil constitutionnel n'a pas dit la vérité sur cette affaire-là n'a pas dit le droit les gens vont dire que way Serigne Saliou Assane je n'ai pas changé de position ma position est constante sur le conseil constitutionnel gis nga quand il fait des actes yoo xam ne nii qui sont en conformité avec le droit avec le droit électoral je le dis quand c'est anticonforme aussi avec ce que le droit électoral dit dama koy wax. cette fois-ci ils n'ont pas dit le droit. c'est clair Serigne alors honorable euh, processus bi yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a nekk ci euh, opposition bi quand foofu yéen fa jubóone c'est un processus chaotique ndax li nga xam ne moom la ñu ci nemmeeku est-ce que remettrul en cause appartenance au ministère bi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi ak direction générale des élections bi nga xam ne autorité am la nekk waru nekk le combat de toute l'opposition euh, pour que mu bañ a organiser yi élection ba ñu yegg si fii moo gën parfois li ñuy dégg ci discours une position boo xamante ne discours bi